nii ça va changer te dina changer incha allah positivement tey li ñu wax ak li ñu expliqué ku mu leerul nag bon peut-être buggoo ko gis mais li ñu wax leer na ñëpp lañ ci boole inclusive pour liggéey Sénégal nekk dëkk boo xam ne euh, fi ñu ko bëgg a yóbbu dina fa yegg incha allah incha allah rabbi donc euh, sawolof ci euh, ba tey ci projet bi ñu bari ñu ngi wax ni référentiel sax bi nga xam ne moom ngeen présenté ay kii la rek maanaam ay taqale la yu ngeen taqale ba dugal Bougane génn na wax na waa PUR génn nañ ne ñoom itam seen programme ci ngeen coppati PSE laal ngeen ci ba dajale ko muy euh, benn document bu ngeen mën a présenter rek mais gëmu leen ni sax nag war ngeen koo mën a pratiquer parce que dix-huit et quelques milliards yi ngeen wax moom ngeen ciy def Bougane sànq critiqué na ko dal na ci kaw loolu aussi yooyu yëpp nee na. wax ne li ñuy fayee bor mooy six mille et quelque. nangam six mille et euh, ci bor lay dem donc ça veut dire yi dañuy sonn paye ses dettes sans réussir. xam nga moom day wax pour wax rek. beneen bi nag mooy taxaw naan ay diw ci man la gisee. man dama jàpp ne <laughs> tous tous les sommets se mènent Rome. noonu yaakaar naa yow bu dee xamtukat nga way politique di xalaat lu baax. war nga jàpp ne képp ku yor xalaat bu baax. war na méngoog sa xalaat maanaam yow bu dee li nga xalaat baax na keneen ku war a ñëw yor sénégalais yi di ràññee est-ce que sénégalais yi xam ñoom taxaw xam nga tey dafa am loo xam ne lii lu ñuy méngale la projet boo xam ne daf fi nekk lu ñu naal bu yàgg teg ko fi toog gis ne parce que dafa am benn ñoom saa su nekk dañuy confirmer euh, président de la république wala premier ministre dañ leen di confirmer chaque fois ku ñëw ne la lii ma fi fekkoon liñ doon wax ne fii la ñu jógee ñu taamu woon ci nga waroon a yem 3 pour cent nga daal di koy weesu dem cinq pour cent ci euh, kii mais ndekete 10 nga dem ci wàllu bor yi nga xam ne tey moom la ñu déficit bi nga xam ne maanaam moom lañ ko yaa nga yaa nga yaa pour cent parce que lan da nga leb ay bor lu dul jeex ci doowu Sénégal maanaam wax lu dul dëgg ci chiffre yi ba tax Nations Unies mais wax ko ci peuple bi parce que li gën a yomb xam nga dafa am loo xam ne soo ko fi masaan a fekk ragal ku la ŋàññi wala dara ak yooyu looloo tax ñoom ñu naan li ñuy tiitalaate lañ war a gën a nekk non dañu nekk ci dëgg euh, jamono yi wax nit ñi dëgg boo waxee nit askan wi dëgg parce que li ñu muuroon lépp umpatul kenn da ngay jékki-jékki sax di wax ne ci wàllu comme tey ci yenn euh, mbir yi nga xam ne moom la ñuy wax ñu ne la non ah, euh, yow lu leer jox chiffre yi wala nangam te alors que ñun loolu suñu alal la dañu tabb ay nit teg leen fa ñu war a gouverner ñuy xam tey ñiy ñëw tegal la lépp parce que moom la Cheikh Anta doon wax ne li ñu topp yëpp dañ leen koy wax ci français suñ leen di wax ci kii dañ leen a fen a fen a fen ba ku leen fenul sax du ngeen kontaan du ngeen ko wóolooti bu ñu ñëwee di la kolkolal ay francais di leen ko ci wax te moo ne bu ñu ko tekki woon ci wolof ngeen wuti yat topp leen tey ñii ñëw euh, taamu wax ko ci wax yu leer tijji panel bi nit ñëpp wax ka nekk sàmm ba ca fële ñëw toog ñëpp daal di toog maanaam ku amoon looy nëbb doo def loolu léegi bu fekkee ne ku mel ni Bougane wax ba jëlaale kaaw scandale Azer ne xaalis bi fu mu dugg mais te moom fàtte na ne li ñuy wax euh, offre spontanée maanaam projet Azer bi c'est un offre spontanée lan mooy offre spontané offre spontanée mooy yow ki nga xam ne yow yaa gis mbir mi tey comme tey ma jël ko exemple sama dëkk bële di Daar Rahman nga xam ne da nga fa ñëw gis ne bassin de rétention bee ñu fa def war na mën a amal njariñ askan wi waaye mais bu amalee njariñ askan wi kon kenn ku nekk daf ciy gis sa bopp yow nga dem mën a trouver ji ci àdduna bi ku la mën a financer maanaam boo ñëwee ba war war ko liggéey war ci liggéey pour mu taxaw dafa am loo xam ne DCMP moom moo ko war a saytu DCMP lan lay saytu disponibilité financement ndax am na maanaam li nga koy financé am na ba pare loolu lañ lay njëkk a laaj bu fekkee ne financement bi de euh, disponible la ñu ne est-ce que mbaa bokkul ci li nga xam ne moom la état bi programmé woon ci budget parce que bu boobaa dootul nekk offre spontanée maanaam état bi dafa programme woon ci budget tali sàngam tali nangam nangam mais am nga loo xam ne buñ ko dolliwaatee ci liggéeyu état bi dana jural askan wi alal ba pare mais yow mën ko ko dem dem dem kii moo tax ñu ne la kon nga fexe ba wan ne bokkul woon ci programme yi état bi nattoon ci suñ budget bi ndax kon soo sinon son spontanéité dootul amati sens mm-hmm. buggaan laay tontu ba tey ci noonu boo ko amee ne nekkul ci kii bi ñu ne la nag góor góorgóorlu ba au minimum vingt pour cent nga sous-traité ko parce que li ñuy bañ mooy conflit d'intérêt bu boobaa nga ñëw ne offre spontanée yaay fay sa bopp yaay def loolu amul keneen ku ci ñëw léegi mu am benn sénégalais qui s'appelle Seydou Kane bu dem waxtaani ak benn espagnol convaincre espagnol ba espagnol bi ñëw ne mën naa def lii mais Seydou Kane du moom moo signé ak état du Sénégal mais AOPO bu Espagne moo signé ak état du Sénégal po moom ndax Seydou Kane su xam la wala daf ko mandaté wala nangam en tout cas du sous-traitance du du du maanaam ko co-traitance ku mu seqal mbir mi ku ñuy dox loola laata ñuy ñëw bugaan laay tontu ba tey mais nga ñëw xaalis génn 37 milliards du xaalisu état Sénégal bu mu génnee parce que offre spontané la banque Santander bu espagnol moo ko génne financé société espagnole ñu war a départ léegi yow loolu état Sénégal nga koy defar léegi comme offre spontané la boo ko liggéeyee état Sénégal ba mu ne bay après mu toog quelque temps pour fay la yow yaa ngi ci mbir mi far ñaar ñi euh, far kële wàcc muy le régime Macky Sall ba tey buggaan nag parce que bopp bu rëy taxul ta bari xam-xam moom laay waxal chaque fois moom li muy giiñ moo nekk ci moom léegi kooku bu ñëwee. ñoom ñaar ñu jékki-jékki société bi ci boppam kim doon màndaate mu tàmbali ko wóola di ko bind ku ñuy wax DCID euh, directeur général d'impôt ne leen dafa am taalu takk lu toll ci xaalis loo xam ne dañ ne dama ko war a fay tax ndax yéen moom la ñu ne ko déedéet lii numéro bi sax amul ci ñu kon xam na ne kon kee daf ko bëgg a dóor mu bindaat DCMP ne dama gisaat benn xaalis boo xam ne xaw naa takku boo xam ne damaa gis ne yéen dañ la dañ leen ko war a fay ñu ne ko du dëgg mu bind arcop bi sayer ñaa am ne ko damaa gis benn xaalis bu wax bu toll ci cent quarante mille euros boo xam ne bu ko màndaxee dafay nekk quatre vingt onze millions boo xam ne dañ na yéen laa koy war a fay kooku tontuwu leen kooku tontuwu leen nga teg foofu sa baaraam kooku tontuwu leen. Arcop si sayer ñaa non. Arcop ñaa ak ñoom mu Ndiaye Cissé ak yooyu yëpp mais Arcop tontuwu leen. waa léegi espagnol bi dajanteeg régime bi wàcc ba keneen daal di falu benn directeur gaa yi jaar ci directeur pour mu jubóo leen directeur bi lu ci sama yoon mais bi mu ko xoolee beneen bi mooy li nekkoon ci biir contrat bi 928000 villages la war a defar te loolu la Bougane daan dénoncé ci Macky Sall doon ko dénoncé ba nëgëdi léegi 928000 villages am na sax euh, directeur bi fi nekkoon narul woon a signé affaire bi ñu wañ loxoom. mais moom góorgóorlu na ba mu mujj jógee neuf cent vingt huit mille euh, villages dem mille cinq cent bi cent mille ñëwaatee gisaat ne affaire bi dafa am dóor yu ci am parce que gis nañu ne dafa am ay surfacturation bokk na ci ay pato eh, poto électrique yoo xam ne deux cent mille francs la war a nekk ñokkali ba un million ñu gis ko mu ne leen léegi man li ma gis mooy lii xaalis bi su ma ko contre euh, xoolee ak prix du marché yéen lii ngeen def ci xaalis bi liñ leen di fay dafa ëpp léegi pour man ma wéyal ak yéen sax mooy da ngeen koy jëlee yóbbu ko mille sept cent village léegi yow bu fekkee ne mille sept cent ba pare sous-traitance bi mu fexe ba nga xam ne nekk na euh, nekk na cinquante pour cent xanaa kon Sénégal gën na cee gis boppam beneen bi léegi léegi mu wane ARCOP ci lan la war a intervenir ARCOP bu fekkee ne autorité contractant bi maanaam mooy ASER bi nekkal Sénégal dafa am problème ak bénéficiaire di mar de marché ñoom ci lay intervenir mais mënta intervenir sañul outrepassé ay prérogatives am maanaam société bi bu fekkoon ne ko société la wala ay sous-traitance wala lu mën a nekk ci privé loolu privé la dañuy dem ci tribunal yi maanaam tey ki ñuy wax Seydou Kane dafa waroon dem ci tribunal du commerce wala fa mu war a dem ñu euh, porté ko fa plainte mais du lu ARCOP war a defar léegi nag ma doo ko ñëw wax la ci jëmmi Saer ñaa ba tey dossier Prodac bi tey am na ci leneen loo xam ne la bi muy nekk ARMP dañu indi facture yoo xam ne dañ ko war a fay maanaam marché boobu dañ ko war a exécuter bu war a toll ci cinq milliards DCMP bi Ibrahima Gueye jiite woon ñu yóbbu ko fa mu xool kayit yi ne leen lii dalut sama xel maanaam jugul nañ dem xoolaat parce que lii mu kii am na lu ko ci jaaxal mooy coow li waral ñu woo xaadim ba tey wala nangam nangam kooku bañal leen cinq milliards mais ñu wiiri dem ARMP mu nangul leen vingt neuf milliards moo tax man buggaan wax dëgg yàlla waxuma rek pour pour euh, ce n'est personnel mais dama jàpp ne Bougane bi ma xamoon suy xool moom it intérêt Sénégal la war a xool warul xool fu mu war a mën a nekk ba pare muy taxaw di taxe naan directeur boo xam ne c'est la première fois mu am fi mais loolu côté attaque personnelle la mais li ci am solo mooy pour ma dellu si ci li ma tax di wax mooy li ci am solo mooy nañu teg réew mi ci dëgg kuñ ci mën a waxal bu dee Abbas Fall yaakaar naa ñoom bi ñuy falu fekk na 37 milliards yooyu génn na dem bu yàgg a yàgg ba dem ci diggante banque espagnole ak société espagnole ak ku muy euh, liggéeyloo muy AOPO Sénégal ci ñoom la yem. état Sénégal tey ñooñu bu ñu yàqoo woon facturé loo xam ne baaxul wala nangam nag état Sénégal day dem ba mu yàgg du ko engagé li mu soxla mooy bala ma laa fay sama 1740 villages da ngeen faa dugal courant ma doog a fay parce que état Sénégal banque bi la war a fay kon suñu xaalis demagul ba Euh, Mansour Sy Cissé wala euh, Badara Gadiaga taxaw naan ëna xaalis bi xaalis bi xam nga ñoom ñoo ko war a laaj Badara mooy espagnol yi seen diggante parce que banque espagnole moo fay su fayee ba pare état Sénégal doo ko fay état Sénégal bala moo fay dañuy fekk ñu électrifier ñu suñu mille sept cent quarante village leer comme buggaan bopp bi baaxul du xalaat ma wax ko loolu mu dugg ci boppam lii fi nekk nag ku nekk di wax naan ay projet man damaa jàpp ne gis nga Sénégal mooy réew mi dàq bind ay projet ak i rapport am na réew yoo xam ne sax dañoo mujj sax bañ li ñuy caricaturer Sénégal dañ ne nañ bàyyi ba Sénégal bind ñoom ñu jëfe ko xam nga man gis nga man ñu ñëwoon sax jëli PSE bii li ci baax taxaw ne li ci baax nangam ak nangam parce que PSE man damaa jàpp ne kenn defarul programme pour mu bon léegi nag boo defaree programme ne lii laa ciy def ba pare wax lu dul dëgg ci biir bañ koo doxal bu boobaa boobu la askan wi waroon a jóg xam nga tey ku mel ni euh, kii dama ko dégg même caat euh, mi ngi ciy wax ne le fait que ñu wooñu comme ça ñu témoin bu ëllëgee ñu xool lan moo amul woon ba pare donte dinaa ko sànni xeer parce que taxaw na naan xaalis biñ ciy def fan la te alors que moom fi mu toog bu déglu woon danañ ko wax ne ko 18000 milliards. xam a que voilà duñ dégg parce que financement bi mu wax lu mu toll fu ñu koy jëlee léegi fu ñu koy mën a jëlee fi ñu koy mën a jëlee. Hmm. wees wut xam nga tey Sénégal li tax Macky Sall man a leb ba ëpp quatre-vingt pour cent te kenn wuccaxut loxoom loolu Abdou Diouf mënu ko woon Senghor mënu ko woon Abdoulaye sax mënu ko woon xam nga lu tax Macky Sall man koo man parce que ci su Wade ak jeexitalu nguuram pétrole daf fi feeñ premier contrat pétrole Macky sax moo ko signé donte mu bu Frank Timis bi ak yooyu ak leneen loo xam ne tey Sénégal daf ko am ci suufam maanaam dafa doon jànq bu jar tey guy gi tey guy gi maanaam guy la gu fi nekk mais ndekete ci biir guy gi sax lëm xam nga buy day faral di am lëm waaw lëm yenn saa yi lem am ca maanaam yenn saa yi yamb yi dem lëm cam lem ba mu nekk ci waaye ca biir guy ga sax hmm. ci biir lëm mi xam nga boo demee guy njulli am na ci foo xam ne wala guy fi ñuy wax guy géewal nga xam ne daan nañ fa euh, suul ay nit sax ñu leen fay wékk ak yu demee noonu ndekete ci biir guy gi dafa amaale ay jamaa léegi nag jamaa yooyu ñu xam trésor boobu ñu xam ne mi ngi ci biir guy gi loolu moo lay may loolu di ci mën a taxaw tey ci euh, les métiers du pétrole pétrole boo ko jëlee gaz bi mu doxalal la sa électricité mën a tax nga compétitif parce que euh, am na ci biir axe yi lu ñuy wax compétitif dafay tax nga gën a mën a compétitif parce que bu ñu góorgóorlu ba kilowatt heure moins cinquante francs léegi tey sénégalais bi defar big dootul riva doo mën naa rivalanteeg européen mën naa rivalanteeg yooyu léegi xaalis bi foofu lay jógee ñun dañu planifier dañu xam ne lii metti na mais comme ni ko Ousmane Sonko waxee ñetti weer yu nekk danañ la tabaxal nga gis ñetti weer yu ci nekk nangam ak nangam danañ fexe ba lii ñuy foo ñun bu ñu banque mondial li ñu fi teg war koo fekk fi di ko fay di bor danañ ko fay. d'accord kenn du wañ loxoom comme li da waxoon FMI bi ak banque mondial yéen yéen a ma lebal lijjanti leen ba ma fay leen waaye nu may def ba fay leen seen yoon newu ci loolu nag Macky Sall mënu Ousmane Sonko tey ci parcours am li mu wax yépp da ngay gis ne panafricain nit ku am fulla fayda président Diomaye mi nga xam ne moom lañ yan yan bi tey fulla fayda jooju bu génnee ci biti dañ koy respecté kon moo lay xamale nu ñu def ba fay leen danañ leen fay te sénégalais yi nit ñu ci sonn comme sonn googu duñ ko yëg daal ñu ko gars yi ñu ko bëggoon waxee donc Abdou Nguer loo ci euh, yokk xam nga euh, affaire yi dafa bari jaxase mélangé gis nga dossier ASER ku bokk Pastef du la ci wax dëgg liñ ci wax yëpp dara du ci dëgg dara amu ci dara dara dara ku ne la état du Sénégal moo négocié ak yi du dëgg dara amu ci AAPO Sénégal moom moo gagné marché bi fay ci quatre-vingt cent quatre-vingt-un milliards millions la ci fay fere yëpp experts yeeg ARCOP yëpp moom moo leen fay banque bi xam nga lu tax financement bi xam nga lu ci dugal espagnol yi. Hmm. banque espagnol bi moo ne. pour mu financer ñii dañ faaw ñu ànd ak partenaire boo xam ne Espagne